qu'est-ce qui tire les, les, les ficelles Qu'est-ce qui explique cette euh, nouvelle sympathie politique entre l'APR et le, le PDS Qui tire les ficelles loolu moom vraiment mënuma ko wax. lu tax. parce que xaw ma ko sincèrement dama lay wax rek. mais lan moo tax. Mm. Euh, APR. di accom Benno Bokk Yaakaar di accompagner le Parti démocratique sénégalais dans cette initiative qui peut se révéler dangereuse pour la stabilité institutionnelle loolu moo tey mu xel loolu moom lu tey mu xel maanaam lu dem ba nga xam ne élection bi un mois moo ci des PDS teg commission d'enquête boo xam ni mën naa yàq élection yi euh, APR ñëw soutenir ko ci commission d'enquête parlementaire loolu teewum xel la loolu moom vraiment tee na ma alors APR dafay soutenir euh, peut-être pour clamer sa bonne foi peut-être parce que l'invalidation de la candidature de Karim Wade les met mal à l'aise ou APR dafay soutenir parce que APR Benno le pouvoir souhaite le report non par contre euh, xaw ma ba xam ñu wax ci invalidation candidat Karim Wade ba pare mais foofu moom y a débat de droit d'accord nga ak man. ah. man su ma doon jugé tey te juriste laa droit bi gars yi jàng laa jàng. Mm-hmm. du ma invalider candidature Macky Sall Karim Wade. pourquoi. parce que renonciation candidature ci droit français déclaration la Karim Wade dafa def déclaration consulat France bi nekk Doha. consul bi ci boppam bind attesté que kii def na déclaration depuis le 26 octobre 2023 décret bi du décret bi mooy def mooy dindi nationalité française du Karim Wade ci droit français liy dindi nationalité bi mooy déclaration bi nga def yow ñëw ni yow man français la waaye damay bàyyi sama nationalité est-ce que dégg nga baax li ma la mm-hmm. donc man li ma jàpp mooy candidature Karim Wade kenn waru ko man loolu mooy sama interprétation droit parce que juge bi bi muy bi muy c'est pas parce que décret bi la 16 la génn que waa ji deful déclaration avant mën nga def déclaration décret bi génn des années avant après parce que y a des lenteurs administratives. mais le code civil. non defal naa mais mais mais mais ci lan la ñu war a. conseil constitutionnel ci code civil. conseil euh, constitutionnel li mu wax. wala ci conseil constitutionnel parce que le code civil dafa ne. Hmm. jusqu'à l'âge de 19 ans par une simple déclaration mën nga acter sa renonciation à la nationalité. Hmm. au-delà de 19 ans de décret. à partir de la date de publication du décret ci la ñuy acter définitivement non, la perte de la nationalité non non non en droit français c'est ce que le code civil français c'est la déclaration non defal euh, de renonciation à la candidature mooy constater perte candidature que perte nationalité ku la wax leneen il te raconte n'importe quoi. mais c'est le code civil français qui. ma ni l'avis defal ndànk defal ndànk ndànk ndànk l'avis du consul français de su fi pour wane ni Karim Wade depuis le 26 octobre 2023 renoncé na à sa nationalité française c'est ça la réalité beneen bi ci topp mooy loi dafa am lettre am esprit déglu baax li ma wax may mun a ñiy def droit xam nañ li may wax lettre loi bi mooy. déglu ma may mun a man boo ma xoolul damay jàpp ni wax ak man. maa ngi lay déglu. lettre loi bi mooy boo liiree loi bi li ngay jàng esprit loi bi mooy jëmuwaay bi lal loi bi déglu baax li ma la esprit loi ñu ni senegal boo ko bëggee jiite doo am ñaari nationalité xam la mooy esprit mooy boo nekkee sénégalais nga dem jëlal jëlaat beneen nationalité wóolootul la pour nga jël pour nga pour nga jiite Sénégal Karim Wade moom fatalement dafa judd am ñaari nationalité parce que nationalité dafa am ci nationalité ci droit ñaar nga ko mën a am le juge soli le droit di sol nga dem toog ci benn réew walla nga juddoo fa walla nga liggéey fa le droit du sol maanaam nga nekk ca suufu réew ma ba am nationalité wala le jus sanguinis maanaam droit bi nga xam ne dafa jóge ci deret Karim dafa am nationalité deret waaye dafa juddu yaayam di tubaab mu am nationalité française donc Karim Wade demul jëliwaat nationalité française donc bu fekkee dangay ngay juger esprit loi bi mënoo condamner Karim Wade pour double nationalité mais est-ce que du conseil. non non dama dama ba pare ma yokkaat ci beneen affaire bu gën a garaaw soxna si àdduna bi ñu nekk citoyenneté planetaire moo nit ñi avion yi bateau yi moo tax ñëpp tukki ñii dem jàng ci yeneen réew ñii takk jabar ci yeneen man par exemple samay doom samay doom samay doom France lañ juddoo nationalité française lañ am ak nationalité sénégalaise. ok ñu ngi jànge foofu am naa sama benn doom bu nekk dans une école préparatoire Lyon mi ngi liggéey PricewaterhouseCoopers bi nekk Nigéria dafa ma woo ma papa ma ne ko ma c'est quoi ça le Sénégal ñu ma léegi man man du ma def politique mais su ma bëggoon nekk président léegi nu muy dem. c'est c'est injuste. Pour, c'est, c'est, c'est une vraie question. pour pour toute cette génération. voilà voilà voilà voilà léegi loolu nooy régler loolu. pourquoi loolu. pourquoi loolu c'est-à-dire il faut ñu nañu bàyyi yooyu góor gi soxna si loolu. à la limite c'est discrimination